président mu ngi wax samedi Bougane Gueye dañuy wax dimanche hmm? dama si journaux lundi yi ba demee si journaux lundi yi dangay yaakaar ni Bougane Gueye Dany mooy président de la république Bassirou Diomaye Faye mooy opposant waaw ah loolu kese moo leer. <laughs> xam nga man Bougane du sama xarit dégg nga man Bougane du sama xarit. mais man la lu ma su ma gisee lu bleu damay ne lii defa bleu su ma gisee lu weex ma ne lii weex na man noonu la ma nit ñi xamee cest di man duma ma waxal pour pour nit kontaan wala ñàkk kontaan mais damay xool demal si journaux lundi j'appelle damay demander tous les sénégalais ñu dem xool les cinquante cinq quotidiens qui sont sorti le lundi nga xool mais parce que tout simplement Bougane Gueye Dany pour une fois a été plus pertinent que le président li mu joxe ci information li nga ci mun génnee li nga mun titre xam nga ñun ay journaliste lañ yaa ngi de Bassirou Diomaye fay bi mu defee kiiwam ba pare mënoo si génnee ñetti titres yu différent Bougane Gueye Dany mënoon nga génnee sept titres yu différent ci li mu wax mais loolu info ñun ay professionnel info la ñun man nag fanatique yi wax di saagaak yooyu man mënuma leen déglu. kon dañu wax Bougane Gueye est parti pour être le chef de l'opposition xam nga bu fekkee da nga ko liggéey xam nga gis nga le chef de l'opposition ne sa proclame pas nga le chef de l'opposition c'est une posture bu nit di am bu dee yow dañ laa toqal ndombal tànku chef de l'opposition te doo xeexal askan wi duñ la fekk ci terrain bi duñ la defal dara dégg nga juba kon yow chef de l'opposition virtuel nga mais le vrai chef de l'opposition mooy ki nga xam ne dafa nekk sur le terrain di apporter des républiques di génnee ay communiqué di nekk sur le terrain di génnee man parce que man bëgguma une opposition crypto personnelle bëgguma tamit une opposition nihiliste xam nga lu may wax lu ma bëgg man ci opposition mooy da ngay ne lii baaxul bu ngeen ma joxee ma def lii te Bougane Gueye Dany il est dans ça dégg nga ju baax Thierno Bocoum il est ñeneen ñu si des dañoo waaf jënd glace li tax ñu jënd glace nag man moo ma jaaxal. mais ana candidat yi yi nekkoon euh, yi seen dënd. mais looloo ma jaaxal où sont yéen da ngeen am benn projet de société sénégalais yi jël beneen projet de société botel ko mais da ngeen ñuy wax kon yéen seen projet de société bi ngeen doon jaay sénégalais yi gëmu leen ko. surtout Amadou waaw. wala gëm ngeen ko bu fekkee ngeen gëm ko da ngeen di ne. ñun kat projet de société bi ñu jaayoon ak ñi ñuy doxalee ñun suñu projet de société moo gën mais tu imagines un parti comme le parti démocratique sénégalais jënd galaas mais ñii mais quand même fu ñu jëm waa PDS parce que ñu naan ay wéy on avait soutenu mais quand tu ne gouvernes pas tu n'es pas au pouvoir et le PDS n'est pas ne gouverne pas parce que n'est pas dans l'attelage gouvernemental. Doudou Coulibaly tontu yu lañ gis mais bul fàtte tontu bi nga xam ne bi également Aminata Touré indi na ko par rapport ak euh, ñi mu jàppee ne xëy na dañoo jànnaxe opposition bu jànnaxe xamatuñ fu ñu teg seen tànk mënuñoo wax kenn fu yoon wi jaar euh, mënuñoo jàngal tamit dara euh, président président Diomaye moom itam génne na ay information yu bëri ah. Aminata Touré moom man dama ko yërëm. Aminata ko yërëmee. j'ai pitié de cette femme xam nga. ku am déception gémmiñ buy nàcc doo jàmm li nga wax xam nga man li ma jàpp li xam ko mooy Mimi Touré moo fi yàqul lu ne Ousmane Sonko tagg Macky tagg APR tagg PSE dëgg la bu dëgg tey bu tourné ne Sonko fi gën moom ak ki bu mu àndal Diomaye vous avez bien travaillé yéen ñi ma nekkaloon bu yàgg ba yéen ay traiteur ngeen yéen ay lii ay lii ah jar naa xoolaat de xam nga man li may wax man je suis dans la scène médiatique depuis 1999 di def ay déclaration di wax ku ma mun génneel vaar boo xam ne dama wax lii tey suba ma wax euh, safaan ba maa la ñaan nga publier ko man la may wax la ma wax sama waxu démb mooy sama waxu tey ñu bëri nee nañ ma yow da nga défendre projet bi ba mu toll fii nga nekk opposant ma ne leen man defendre ma projet ndax kenn mësuma dégg may wax programme Ousmane Sonko fi gën non man kenn mësuma dégg loolu man li ma def mooy dañ doon opprimer Ousmane Sonko Diomaye fay ak waa Pastef ak certains Sénégalais ma défendre loolu ba mu jeex dégg nga ñu baax la preuve si présidentielle yi mais ñëpp mais xanaa ku dof sax te muusoo sa calcul ngay calculer rek xam nga ni Diomaye mii avait beaucoup de chance pour remporter les élections waaye kon xanaa kon ak la ma xeex yëpp kon daan noonaa dem ranger bu sekkee man dama foroon si ñoom beneen bi ñoom bi ñu gëñ tey li tax ñu bëri fii si journaliste yi jënd glace toog si mooy ñu ngi xaar poste dinaa ñëw ci loolu de mais Aminata Touré bi bi jàpp ne xëy na am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi génn di wax président Macky Sall moo nekk ca tugal xëy na di leen wax ne yëngu leen. ah kon xanaa Bougane bi muy def campagne moom kese législative ñu kale listam mu dépensé ay centaines de millions dem def campagne ah pour rek lenn rek bu leen voteel Macky Sall kon xanaa kooku moo gore boobu moom fu mu nekkoon. boobu moom mu ngi doon utal majorité Macky Sall mais il faut que projet bi ñuy jaay mooy rupture systémique xanaa li gën a li gën a élémentaire mooy nga bañ a jël les hommes du système dugalaat leen sa biir xam nga. te loolu dafay am fi mu nii mais ah yow boo jëlee ay lance Lansana Gagny Sakho nga xam ne système bi moom moo ko incarné ONAS toj fa yàq fa. dangeen ngeen fàttali nu ba sëñ Bas Abdou Khadr Mbacke da ko dàq tuuba ndax ñàkk liggéeyam ñàkk xarañam njëriñoo Touba kooku moo ñëwaat dellu si waat par la petite porte nga ñëw yeewu suba teel ñu fal papa yaay doom nga gis kër lëmm gis village lëmm gis quartier lëmm amul kenn ku ñu fal waa ñii daal ñii daal ñoom seen papa ak seen yaay mun nañ dem plaider leen. mais booy doon sànni xeer di wàcc ci tali bi di rey seen bopp ñoom kan moo leen di plaidel kan moo leen di utal emploi xale bu jigéen boobu ñu fal d'accord naa ñu fal ko mais nañu won moom nañu wax pendant que xale yi nekkoon ci tali bi di xeex fan la nekkoon nañu won photo muy suffisant ak vidéo xam nga man xam nga man yooyu mooy mooy bax sama xol bi c'est pas parce que moom fal nañ ko mais xoolal amul amul mbirum design la doon yëngu ah nee nañ spécialiste. mais dama ne déggoo lu ma la wax APDA du design moo koy gérer lu moo wax lu ma xam la nekk nekk naa ministère de l'artisanat et du tourisme technicien gestionnaire moo koy gérer du designer kooku dama xam lu xew yow ak simple actrice la woon di kooku ñëw boo ko ñëwee jox la direction mooy l'orientation de la promotion et le développement de l'artisanat yow fooyee wooñu léegi dama bëgg Juliette Zenga moom xawma ma dama dama jum Zenga si ah doomu Jacques Habib si ak yaayam mooy mooy kii ministre des affaires étrangères nañ ñu woon photo ak vidéo ndax xeex na loolu laa wax man waxuma leneen de est-ce que xeex na